nañuy mën a convaincre jigéen ala kulli xaal mbokk lañu xam ne di woote ci lislaam daa mooy priorité ki nga xam ne du julli lañu war a jëkk a wax moom mooy na julli loolu mooy mbir bi nañu fexe ba muy julli suñ yégee ne mi ngi julli ñu dem ak ci moom ci yeneen étape amma bu dee jigéen nag bokk na ci étape yu am solo mooy nay fexe ba muur awraam ndax muur awro boobu benn identité la boo xam ne su demee ba koy commencé def rek dana ko aar ci lu bari yaakaar naa gaa yi joxe invitation baal yi jigéen ñi di xijaab dañ leen teggi am déet ndax ndax ndax <coughs> muuraay boobu la sunu borom ne da leen di protéger kon loolu mooy daal mbir yi waaye nañu xam ne priorité bi mooy nañu fexe ba di julli gannaaw ba jigéen la gën a am solo mooy del muur saawara non. Euh, kii mu ne léegi télévision li lépp la ëmb ci indi télévision këram ko que mu ne est-ce ndax euh, dagan na nit ki indi télévision ci këram ala kulli xaal mbokk télévision ab appareil la. sunu boroom yàlla subhanahu wa taala di gis nañu ni bañ koy laaj ca sàngara avant ko yàlla di araamal def ni day am na ci njariñ am na ci lor lor bi nag moo ëpp njëriñ bi am na ñu bari fa lañ woon bàyyi sàngara avant ko yàlla di araamal loolu ñun liñ ciy wax mooy télévision appareil la am na njariñ am na lor mais lor ba day moo ëpp njëriñ bi léegi bu dee yàlla may na la kàttan nga mën a am télévision daa di koy utal caabi ni nga utale sa caabi téléphone léegi portable yi tasaaroo na mais li xewoon ci kër yëpp mooy téléphone fixe mais boo demee borom kër gi moo yor caabi téléphone bi balaa kenn téléphone yi ci moom laaj ko ndigal mu jox ko mu téléphone yi su dee ne borom kër gi am na kàttanu saytu télévision bi ba dara du ci gën lu dul neex yàlla su boobaa rek duñu mën a wax télévision bu baaxul waaye bu dee da ngaa mel ne man man sama wàllu ba personnellement man ooma kàttan googu moo tax man ooma télévision ñemewuma ko am sama njaboot parce que xam naa ne man ooma kàttanu man koo contrôler ba dara du fa génn ci sama kër lu neexul yàlla ba kenn du fa fecc góor ak jigéen du jaxasoo ci télévision bi lenn luy mbiri seytaane du génn sama saal loolu man amaguma ci kàttan loolu moo tax ooma télévision benn doom ànd naag ay moroomam ñu jóge ca lekkool ba bi ñëwee ci salle bi benn xale xool-xool na moroom yi hii xool leen ñii seen salle bi amul télévision parce que loolu dañoo jàpp ne loolu warul mën a nekk nan ngay am mbokk dañuy gis ne loolu la yàlla nattoo bu ko defee ah, ci li may wax dal ci gàttal néewuma télévision dafa xaram waaye xam leen ne la cay nekk ci lor moo ëpp njëriñam bépp julit boo xam ne mën naa moytu lor ba loolee kenn araamuloo ko ci moom boo melee ne man nag moom la ma lay digal mooy bul ut télévision di ko jox sa njaboot mi ngi noonu. bu dee football bii li ñuy tudd mondial mbokk coupe du monde organisé par la FIFA noonu adduna bi waxuma sax noonu l'islam ñoom ñoo ko organisé def ci milliards yu dul jeex ngir détourner notre jeunesse. te la nga xam ne mooy l'essentiel ba yow ndawal jullit bi dem di seetaan ah, Côte d'Ivoire Argentine quatre-vingt-dix minutes de jeu plus les mi-temps plus les caaxaan yi ci nekk nga jël une trente deux heures ko petit écran bi nga jógee lan la la jëriñ sàdduna lu mu la yokk si wàllu diine gaa yi lépp lu la jëriñu rek mi ngi lay lor àdduna dara taxawu fi da ngay arrière wala nga avancé yonent bi alayhi salaam nee na min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi bokk na nit ki lii wane ne diineem baax na lu ko amuloon njëriñ mu bàyyi ko billahi li ma leen di laaj mbokk julit yow mi taxaw ci kanamu télévision bi xool ñaar fukki ponkol ak ñaar ñuy dàq ab bal tuyi tuyi tuyi tuyi pendant quatre-vingt-dix minutes nga seetaan ko ba pare lan la la yokk sa wàllu àdduna lan la la yokk sa wàllu diine loolu kon ñu xam ne ndawal julit bu baax loolu waroon na koo jël jàng ci alquran wara na koo jël réviser ci waroon na koo jël hatta ay livre de science yu ay yéefar bind sax muy xool lan la yàlla bind ci jaww ji waroon na koo jël xool l'histoire pour mieux préparer l'avenir plutôt que mu jël tout ce temps là 64 matchs de football di ko jagleel bés bu ne ngay seetaan ay match mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam. kii mu ne julligee rek imaam bi loolu mbokk borom xam-xam dañ ci am ixtilaaf su dee ne tey mazhab Malik la ñu jàpp imaam rawal na la ñaari rakka gay bu sëlmalee da ngay jóg taxaw rakka bu ne nga jàng fatiha ak saar ca nga koy jàng soo demoon ci yeneen mazahib yi ñoom dañoo jàpp day déedéet dangay ngay mottali julli gi comme da nga koy li am nga ñaar kon yeneen rakk yi ci des da ngay jàng fatiha ci suuf nga koy jànge waaye loolu loo ci def baax na ni nga noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam léegi kii mu ne ani ah, mooy façade wax doon dafa tasaaroo ba am ay degré léegi mooy est-ce que ndaw mu ndaw bi ju bi dund mel Dakar dina am possibilité mbucc si si mbooleem jàkkute caaxaan ci góor góor a jigéen mucc ci wàllu musique mucc ci wàllu football wàllu basket amul loolu école c'est possible quoi. xam nañ ne yàqu gi ni mu bëri noonu la feebar yi bëri yàlla cancer yàlla diabète yàlla gaana yàlla nangam yow ndawal jullit ndax da nga jàpp ne noonu mënu ma ñu mucc ci feebar yi il faut ma am benn bu ma ci dal xam nga loolu doo ko wax kon nag yow dawal sa kemtaleel kattan du loolu la yàlla wax de fattaqullaha mastataatum ragal leen yàlla seen kemtaleel kattan lu la ci yàlla nattoo na la metti ngay toroxlu yàlla yàlla musal la ci moom am na jeune boo xam ne yàlla nattoo na ko ba tey moom daal film film moom seetaaneem la loolu xamal ne feebar bu grave la ñaanal yàlla musal la ci loolu waa ji yàlla nattoon ma ngay tux cigarette wala ma ngay njaaloo wala ma ngay nangam kooku ko de grave grave maladie na ngay bëgg mucc ci maladie yi corporelle yi fexeel ñaan yàlla musal la ci loolu mais bu la seytaane bul bunt na ah no non non non tentation yi moom mën a mucc ci yëpp fokk da ngay am yooyu def bàyyi yooyu def abadan mi nga noonu am na question école la quoi mu ne baax bi def devoir mu ne dimbali moromam ci devoir bi <laughs> islam nangul tricherie tricherie islam du ko nangu ci lenn su ko defee euh, xale bi ngay def devoir wurloo ko wax loolu lañ koy tudd zuur parce que kooku mi ngeen na représenté benn copie boo xam ne dañuy jàpp ne lii liggéeyam la fekk du liggéeyam liggéeyu keneen la su ko defee daal dimbalante la yàlla wax nañ koy def ci lu baax mais amee tricherie loolu kenn du ci dimbalante mi ngi noonu waaw. dagg ay wee ci gémmiñ na loolu de xanaa gone ñu dem yee kay def waaye wax dëgg yàlla comme yàlla may nañu ay moyen mooy coupe ongle yaa ngi feeg laam yeeg ciseaux yi loolu kii am maa nag bëree ndax dagan ak araam loolu abadan waxuñu ne dafa dafa araam waaye daal ñu xam ne loolu du rafet ay wee moom boo ko jël di ko matt sa ñu loolu moom du rafet te mën nga caa gaañoo su ko defee loolu daal xëy na mbiri xale la wallahu subhanahu wa taala question mooy que ay conseil ci jeunes yi nga xam ne ñoom dañuy jëm googu ci wàllu sunna te nekk ay ndaw léegi parfois mën na am ay ay yenn afkaar yi ñëw seen bopp ba ñenn ñi exemple di nangoo wàññi si kim wa imma ñu koy wat wa imma ñi nangoo di isbaar mooy nango suñ li wala bu demee si côté jigéen yi bu ñuy muur tamit nangoo masala da nga gis jigéen bu muuru di sol ay bëri lu ko fa yóbbee mooy parfois parfois tentation yooyu ci jóg war quoi léegi ñooñu dañuy soxla ay conseil ño ala kulli xaal euh, li ñuy wax ci lool rek mooy ñu daal di góorgóorlu xam ne diine jàmm yàlla la ca yàlla loo ko gën a jege yàlla di lay gën a jege su ko defee nga góor góorlu nekk misaal boo xam ne sa objectif bi gën a màgg na doon ut ngërëmal yàlla ñooñu nga wax yépp dañoo bëgg société bi kontaan ci ñoom société bi boole leen waaye boo fexee ba yàlla boole la rek da ngay xam ne jeex na nit ñi baax ñëpp dañ la bëgg yeneen ci baale sam ne nag nit ki bu góorgóorloo ci li neex yàlla ba yàlla bëgg ko day woo jibril jibril dama bëgg diw bëgg ko jibril wàcc ci malaaka yi ne leen ee malaaka yi yàlla day dafa bëgg diw man bëgg naa ko bëgg leen ko malaaka yëpp bëgg ko yàlla wàcc mbëggeelam ci bépp xol bu baax ci kaw suuf yow xale bu jigéen bi nga xam ne da ngaa toll ci ndaw toll ci wàllu sëy nga dumma yu budi yeeg fiiso yi am xijaab bu rafet ijaab bu mat sëkk ku baax koo dajal dana la bëgg mën naam nag boo dajeeg saay-saay mu banni la ndax na bëggoon ci amu ko waaye mbokk nit ñi baax ñëpp bëgg la même bu doon te ni dix lañu moo gën un million yu bon bëgg la loolu ma wax ci xale bu jigéen bi laay wax ci xale bu góor bi fexeel daal dund la sa dina dund sa sunna yàlla bëgg la ay malaakaam bëgg la nit ñi baax ñi bëgg la loolu boo ko amee rek da ngay xam ne am nga tranquillité amma di jéem a def double jeu da ngay sonn rek ndax la nga xamee ni mooy ñeneen ñi tant que ànd ak pour cent duñu la bëgg te fekk ne yaa ngi jalgati sunna loolu daal kon ñu góor góor góorgóorlu donte ne it doomu aadama yi il faut ñu xam ne it mënuñu xëy rek daal di parfait mooy nañuy naxanteeg ñoom suñ gisee xale bu jigéen bu nangoo muuru mais ma ngay am col gu bon it nañuy naxanteeg moom ba baax muy doon ko parfait mais buñ ko isolé jàpp ne kii dafa sàggan wala dafa nangam no nit ñi suñu borom dane nañuy diglante lu baax di dëgëralante jullit bu nekk doon birig buy dëgëral moroomam loolu tax waxtaan yi baax daje yi baax ndax day tax ngeen di mën ci jàppalante ñi ngi ñaan yàlla jàppale leen jàppale bépp jullit ki mooy bu mujj bi xanaa waaw waaw. xam naa Euh, mu ne la muy àtte jullit bu nangul de weeru koor wala kuli xaal jullit bu dul génnee muurum koor loolu moom la ñu jàpp ne daa xamut parce que foog naa ni bu doon te ne wóorul dana lan mooy àtte jullit bu wóorul waaye la fekk mu bàyyi fa koor ga wax muurum koor damaa jàpp ne kooku daa xamul waaye ki am 30 jours mu woor ko ba pare muurum koor c'est juste deux kilos kooku bu ko amee la chaque dana ko génne am maa nag bu dee nag amu ko ku mel noonu dañ naan foo ko amee génne ko su demee nag amu ko ba amu ko kooku yàlla teggal na ko ko jeex na loolu daal mooy mbir bi xam naa li ñuy jeexal rek mooy ñu xam ne weer bu màgg mi ngi ñëw lu mën a doon nag dañ des koy waajal te ji xale yi am ay compétition football dañ koy préparer ci ay match ci ay lu nekk ay regroupement loolu tax ba koor gi ñëw it da ngay góorgóorlu jéem a jegewaat alquran baril di ko jàng ngiree koor gi ñëw fekk la ci allure jéem a yokk sa heure yi nga daan yeewu guddi ngiree préparer la nga xam ne mooy say naafila la a moytu sa kemtalal kattan place yi caaxaan yi télévision yaag yu bari ngiree loolu bu koor gi ñëwee fekk roode nga ci loolu dangay ngay gis moo gën bàyyi ba jour koor gi ñëw nga doog ko départ loolu mën na am nga ratt jour yu bëri mais mujjug Chaabaan bi da nga ci war a entraîner mel na yaa ngi biir weeru koor su ko defee da ngay gis weeru koor bi ñëwee dalay fekk ci biir allure boobu ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala rek yal na yàlla fekkeeloo ñu ko ci jàmm te it euh, yàlla dimbali ñu ñu woor ko nam ko gërëmi mboolem xéewal yëpp ñu defaloon ci koor yi passé yal na ñu defal bu ko raw ci koor gi di ñëw yal na yàlla subhanahu wa taala aar ñu aaral ñu suñu njaboot may ñu mujj gu rafet defal ñu àjjana suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain